allo señ bi wa allo Dakar TV la atay ah, dañu fas yéene ak askan bi si walum drok bi ñuy dégg ne parce dañu gis ni que drok bi barna ci si dëkk bi tan yi eh, jappu nañ ko fi si port bi tan yi tamit dëggaat ni que eh, dafa feñ ci côté aéroport bi si lañu bëggon nga wax ci touti sa xalaat lan la joxee ci walum drok assalamu ah, alaykum sino ma ngi ni askan di leen xamal ne walu drok bi ci réew franchement. dem nañ ba tout maîtriser tu te surtout ñun suñu état bi ñoom ñoo war a veiller tout tànk yi nga xam ne ñoo màgg pour wàllu drogue bi donc drogue bi actuellement dafa envahir dëkk bi même drogué sax en leur voyant même dans les quartiers dans la rue tu vois même des drogués te amoo si benn droit te ñoom ñoo mën taxaw ci pour loolu dañ fi donc état yi ñoom ñoo ñu war a mën ci drogue bi parce que nous ñoo xam secteur bi nga xam ne fa la drogue bi jaar ak ni muy transiter yooyu yëpp ñoom bu ñu si jógoon tey drogue bi dina jeex donc pour l'instant dal man loolu laa gisagum ci walu drogue bi ci Sénégal parce que bon bu continuer suñu population nouvelle génération bi ñoy subir conséquences quoi donc état bi lo mën japp ci walu drogue bi dal franchement ñu ngi ñaan nga ñu ci lu mel non mais je me dis que ne sécurité rek mo waral drogue bu am accès ci biir réew bi di dubbu ba mu sécurité bi je pense que dara wartu mën a dugg suñu biir réew mi ba mën a jeune jeunes yi di yàq suñu jeune aussi parce que loolu c'est pas normal franchement parlant war nañ ci jóg pour mën a sauver jeune yi actuellement. Bonjour, oui, moi je m'appelle Pape Aline Badara Euh, par rapport à la, à la drogue qui circule dans le pays, moi je dirais que c'est pas une bonne chose quoi, mais, mais, mais c'est ce qui se passe quoi, y a, on peut rien y faire. Genre, les jeunes d'aujourd'hui, il y en a plein qui fument. Moi, j'ai des amis qui fument avec leur père, par exemple du cannabis. Donc, c'est la mentalité qui a changé quoi, par rapport à avant. Moi, je, parle de mon époque. Je ne parle, pas de l'époque d'avant, je parle de mon époque. Mais de mon époque, je sais que maintenant, les parents fument, par exemple, avec leur enfant. Comparé, à avant, je n'imaginais pas que mon père pourrait fumer avec son fils, un truc comme ça, vous voyez. Là, on voit, on, voit des gens qui circulent avec, avec de la drogue comme ça sur, eux, et qui roulent leurs gens dans la rue. Maintenant, ils s'en foutent, ils ont même plus de respect pour les grandes personnes. Donc vraiment, c'est pas une bonne chose. Quoi. Bon, premièrement, moi, nous, Sénégalais, nous, quoi. on est des Africains. Euh, on vit, si xamné ni du tay, On parle de drogue, on parle de maintenant, mais c'est pas maintenant. Drogue bi yagna, du tay. Depuis suñuy mam la ak suñuy mamat, télé amul won, radio amul won, motax kenn mënul xam lan mo doon drogue tey la nit ñi xam luy drogue waaw bon y a des gens qu'on désigne comme des drogués mais drogue dafa bari façon ceebu jën boo ko tàmmee ba tàmm ko ak yabooy sax drogué nga parce que boo ko lekkul doo taxaw comprendre nga moo lay faj te j'ai un père qui me disait que ni nit ki li koy faj mooy li mu soxla nit day am adrénaline day jékki-jékki di tàng di mer di sedd am na ñoo xam ne seen degré il faut que ñu naan pour tàngaay boobu ñuy tàng ñu dal am na ñoo xam ne foog ñu tux pour mën a dal am na ñoo xam ne foog ñu fóon cocaïne pour ñu mën a dal drogue loolu la mooy li nit ki tàmm am na ñoo xam ne góor lañ tàmm bu ñu amul góor du ñu nekk c'est la toujours la drogue comprendre nga am na ñoo xam ne jigéen lañ tàmm bu ñu ko amul c'est la drogue mais drogue bi ñu jàpp ni si dëkk bi mu nu fee ñàkk yàgg na fi parce que dañ ne Dakar est une plante Dakar est une plaque tournante waaw gis nañu déreg bi dañ ko fi tere woon quoi wa légui ne taxul ni dañ ko fi tere woon am na bi ko wax dañ ko téré ci biir dëkk bi mais gis nañu drogue bi dafa bari fi temps yi mu ngi am bari fi wa ban xalaat nga si am léegi xalaat bi ma si am moy dans la vie il faut toujours s'organiser waaw ah, organisation dafa am ci doomu adama pour mu mun ci génn ñiñ ci mëna a toujours ce sont les chefs d'État mais si si les chefs d'État prennent la drogue ceux qui sont autour d'eux prennent prennent la drogue diko neub di jàppale drogue euh, les drogues mineures, ak li ñuy wax ay drogués douces ak yu xamul di leen sonal te ñoom sonaluñu leen ils ont des milliards ils ont des comptes on regarde des documentaires dans toutes les télé du monde nit ñaa ngi gis lii xew ñi gën a kawe mën costume gën a cravate nekk ci tribunaux yeeg hôpitaux yeeg ñiy drogué bari nañu mais dafa am ñu feeñ am ñu feeñu tubaab bi nag xaalis lay wut ku am jikko tubaab tamit nekk nit ku ñuul nekk tubaab bu ñuuul da ngay naan business la dama ciy wut xaalis frontières yi ñi ko war a

yaa ngi comprendre looloo waral nag ñu gën a di yedd xale di leen ñaax mais affaire de drogue moom franchement ma soñoon fii dañ ko fi interdire waruñu nangu si ñu koy jéem a dugal ak génnee amul benn sens te tamit jëmalul réew. li wax dañ ko fi war a interdire léegi ñan ñu war a def interdiction boobu mu mën a euh, taxaw ñan ñu war a taxaw ndax euh, drogue bi mu bañ a amati fi dëkk bi ko waaw loolu ci wàllum gouvernement bi la rek ñoom ñoo war a gën a jël seen matukaay pour drogue fi dugg franchement ndax jëmalul dëkk kanam man loolu laa xalaat. ah loolu doo ci du ma ne dama ci am xalaat bu sori parce que c'est tellement simple drogue amul tànk drogue du jël boppam di fi dugal tey buñ ko fi bëggoon éliminer ca source ba lay doonee source bi nag xawma keneen xamul te tey looy gis ngay gis Sénégal mooy jeunesse bi moo ëpp ci liñ koy utiliser te jenesse bu amul esprit sain wala bu àndut xelam du mën a def luy jëmale réewam kanam tey ñun leen rek lañu mën a am mooy ñi nga xamante ni ñoo fi toogal askan wi muy góor gi. que ce soit ñi mu nek nitu yoon yi mu nek ñi teural yoon yi parce que drogue mënul tëb tëb rek duggu Sénégal dina am fu muy jaar fa muy jaar tay bu ci nit ñi xaré sen tank tubay mo ñu nek fi njiit peut-être bu ñu arrêté foofu mën na baña yexi fi Sénégal ba xalé yi di jël di ko parce que lo boko waxul sax wala gisoko ko nga ko da ngay gis réegi mi jeune nga dem ci plage yi wala nga dem ci mbedd mi wala nga doxantu guddi boo nekkee doxatu guddi da ngay gis lu doy waar lu doy waar ci xale yi léegi nu leen neex lañ koy defee fu leen neex lañ koy jëlee problème boobu fan la jóge est-ce que nit ñi ñu ngi ciy wax est-ce que nit ñi gëmmuñu ci pour man parce que da ngay gis ku nekk ci koñ am lu muy def nit ñi xam ko duñ ko dénoncé peut-être damay jàpp ni buñ ko jëlee woon ci gannaaw wala ci suuf. top ko diko top diko top mën nañ xam ni jaan bi bob bi fan la ne ñu daggé ko fa. euh sama xalaat bu moy lenn la quoi affaire yi mom dama yaakaani borom doole rek la fi duggal quoi waaw parce que bo amul doole do ko fi mëna duggal waaw mais bo amé doole mom da ngay ñëw rek waaw duggu mom nice te gaay rek la ci jappalé lolay système du Sénégal léegi bo amé doole gaal la tek choc mais bo amul doole da ngay xaar waaw ak Serigne Touba. borom doole rek laa gëm ni ñoom ñoo fi am doole rek pour jëm fi dugal dorog mais du pauvre. gisoon nañ ne que amoon na luwaa bu génnoon luwaa bi tere eh, jaayum dorog bi fi terewul nag gars yi ñu ngi koy indi ba tey yow nag sa sa xalaat lan la mën a joxe si loolu lan la ñu war a taxawee ni mën a tere dorog bi fi waaw mais beneen si tamit gars yi tamit da ngay reeb a sonn quoi. dañuy jël benn affaire tere ko ba pare euh, daa am ñuy rax si suuf quoi di jàppale gars yi tamit xam nga ñu leen di may doole. xam nga gars yi ñoom boo ma mayee doole rek dañuy ñëw dorog bi moom macha allah xam naa ne moom bëri na fi torop waaw bëri na fi moom dorog bi moom xam naa bëri na fi de parce que ñëpp moom la ñuy wër dorog dorog dorog dorog gars ñëpp moom la ñuy wër. man na drogue bi li ma si gis côté négatif parce que drogue bi moo indi agression yu bari fii en plus jeunes yu bëri waaw dof nan en plus agression bi lu koy indi mooy da ngay xëy tey. bëgg loo jëndee drogue doo ko am nga dogaale nit ñi si mbedd mi di leen kar jël seen bakkan rien pour loo amee loo loo jëndee drogue man daal loolu laa si gis. ak drogue bi moom ci dëkk bi moom doy na waa te état bi moom war na ci taxaw ba dootu duggati ci dëkk bi parce que agression yi bari na à cause de drogue bi histoire yi bari na xeex bi bari na.